sénégalais saa sunu xëyee da nga dégg ñu ne rey nañu fi nit wala ñu ne fi blessé nañ fi nit wala ñu ne toroxal nañu fi nit maanaam violence physique bi nekk ci réew mi jéggi na dayoo ak violence verbale bi journal bi nee na fii ci réewum Sénégal soxor nañ genn xeetu soxor goo xam ne maana day taali mën na lay gis nga yéenante wuñ jàmma yéene kaay gi tamit nee ci biir bërëbu jàngukaay yi foofee sax dañu fay fekk ay mbir yoo xam ne mbir yu doy waar a doy waar la Assane Samb nee na société bii nga xam ne mooy sunu société bi jamono ji jot nañu daal di koy waxtaane waat ndax li nga xam ne moo xew ci réew mi doy na waar genn xeetu doy waar goo na dayoo yéenekaay gi di Walf Fadjri wax ci lu jëm ci wàllum njëg yi nga xam ne jamono ji dafa yokk ba maara détaali gouvernement bu Sénégal ñoom nag nee nañu dinañu ko jéem a lijjante waaye nag yoon wii nga xam ne moom la ñu awa du yoonu lijjanti ko yéenekaay gi di Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ak waa mairie bu Ziguinchor doon nañu amal lancement du fonds de cinq milliards pour l'économie sociale et solidaire Ousmane Sonko daat nay jënd li nga xam ne mooy ay oto mbalit ci turu mairie bi waaye tamit daat nay ñaax ñi nga xam ne ñooy ndawi Ziguinchor yi ñu daal di liggéey nee leen mairie bi maanaam nag du ay nit ñooy jóge ci asamaan si ñëw defaral ñu ko ñun ñi nga xam maanaam ñoo fi fekk baax du ay doomu Ziguinchor ñun ñoo ko mën a defara Ousmane Sonko wax na xale yu góor yi xale jigéen yu lu mel ni midi nee na kenn ku nekk bay boo nga jël sa loxo dugal ci sa poos daal di génne aw weccet ñu daal di koy boole mën a liggéey Ziguinchor journal bi di 24 heures nee na Ousmane Sonko lu toll ci juróomi milliards la soxla ngir liggéey Ziguinchor bam ne booy waaye nag moom Ousmane Sonko menacé na ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur wa ci mairie bi leen képp koo xam ne détourné nga fi xaalis maanaam sàcc nga fi alalu mairie bi danañu la yóbbu fa mbaxana doone benn maanaam sonoon cinquante mille francs sax la danañu la yóbbu yoona yéene kaay gi di vox populi ci lu jëm ci mbiri amnistie Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall Thierno Alassane Sall nee na jamono ji nag maanaam wàllum politique dañu ko waroon a tegee na jublu nag ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la askanu Sénégal amee yéene kaay gi de la Tribune nee na Karim Wade mi ñuy wax ne moom la ñuy amnistie moom jamono ji bëggul ku ko amnistie maanaam sax dàqul juge ci parti bii di PDS yéene kaay gi di Direct News xale yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar fare ca diwaanu Bambey ñoom nag nee nañu gouvernement bu yees bi amul benn cadre bu dëkk Bambey bu ci bokk loolee moo tax ñoom mer nañ ba mara détail kaay gi di Rewmi Quotidien ñu koy fekk fa journaliste Bakary Domingo Mané maanaam lu mu yëkkul yenn ci journaliste yi daf ko fàtte ndax nee fii ci presse bi bëri ci nag ñoo xam ne maanaam dañu leen di gere pare nañu nag pour développer ndax nit ki soo ko gere nag kooke nag maanaam jombutu da def dara moom Bakary Domingo Mané nee na fi ay journaliste yoo xam ne dañu leen di gere maanaam ñu xëy bind li ñuy bind xëy di xaar seenub sekk wala ngoon gi ñu gi di la Soleil xëy na wax ci lu jëm ci wàllum jën maanaam jën jamono ji mën nañoo wax ne doom ji góor la bëri na ñoo xam ne tegutuñu ko bët ñi ko jot a teg bët la ñu koy jëndee na ba jéggi dayoo loolee moo tax ñi nga xam na ñooy acteurs yi di ci liggéey ñoo ngi jàmbat yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng mi ak njàngale mi démb la woon ubbite école bi ci jàngalekat yi waaye bëri na ci ay école yoo xam ne ci banlieue bi maanaam picc nekku fa ubbi tey jàng tey gi nga xam ne moom la ñuy wax bëri na ci ay xelu jàngalekat yoo xam ne maanaam tey na si ndax jàngalekat yi ñoo ngi laaj de dotation yi yéen kaay gi de la Réveil Quotidien nee na ci Sénégal bëri na ci ay école yoo xam ne ndox maa nga fay jaaba jonge fu ci mel ni ci Ndakaaru bëri na ci école yoo xam ne dafa fees dell comme ndox ndox maa nga fa ci diwaanu Kolda ba sa diwaanu Ziguinchor yéen kaay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu université yi jamono ji yëngu na ndax mboolem université yi nga xam ne ndax mboolem université yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal danañu gerew gerew